fii ci barab bii di Masaalikul Jinaan di barabu sëriñ Touba ñu daje fi nag di jëfe ndigalal sëriñ bi ci gàmm gi nga xamante ni yàlla dogal na ba ko sëñ tubaay def ci senegal amul ku ko def fa ko doon defee ca bitim réew it amul ku ko fekk moo jël ci xalimaam bind nii wajaxtu waji li man kulli li man li man euh, wajaxtu kulli li man kaabuwa baana fi chahri mawlidi man fi bahri rabbaana sëñ Bamba moo ne ca géej ga laa toog doon sant yàlla di julli ci yonent bi di fa gàmmoo ca géej ga amul kenn nag ku ma sa bàyyi ko fii dem ci géej gi gàmmul fa rasulullaay ku dul sëñ Touba kon nag li mu digle ci gàmm it moo ne ah yeytu mawlidu nabi fi assasin 1301 xaadimu rasul nee na maa jëkk a gàmm ci 1301 te yaakaar naa ne 1301 moo dajeeg 1883 di dat bi sëñ Massamba gane àdduna kon bu ngeen ñëwee fii ci Masalikul Jinaan ñu waajal gàmm gi ci ndigalal sëriñ bi sunu jëwriñ yi taxaw ci taxawaay bu rafet ànd ak nun ci biir liggéey bi kon dañ leen di wax ni gàmmoo ngoog gàmmu nag ki ko moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon jullit yëpp ko war a def fàttaliku jukkoom jë fàttaliku lu baax la nga xamante ni sunnaam la ñun ñëpp ñu àndandoo di ko def kon nag loolu mooy gàmmu sëñ Tuubaa nag nee na tas yi moo bi sunnati ku ko màggal ci sunna nan nga koy màggale ci sunna mooy nii jëwriñ def di ay nag beernde jàng alxuraan te soo ba tey loolu ngeen di gis daaray kaamil la nga nële di jàng alxuraan yaakaar naa ne daan ci jàng li mu ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett bernde yi wax dëgg yàlla ñi mu ñi mu ko teg seen loxo yi ñi ngi koy saytu ñii nga xamante ni ñooy daayira yit kenn ku ne yaa gi indi say barkeelu ñii di indi ay beñe ñii di indi ay boisson ñii di indi ay ndox ngir waajale ko mawlidu rasul sallallahu alayhi wa sallam fii ma toog nag ba ma ba madinatul munawara Serigne Touba li ko yàlla sédd ci gàmm séddiwu ko kenn fa muy gàmmoo moo ko moom la muy gàmmoo moo ko wax ku dul sëriñ bi da ngay wax la ngay gàmmoo te doo moom fa ngay gàmmoo mbaa nga moom fa ngay gàmmoo te doo wax la ngay gàmmoo waaye nag moom fa ngay gàmmoo wax la ngay gàmmoo moom ña ngay gàmmool yàlla moom Cheikh Al Khadim rek la ko dénk kon nag ñu ngi leen di sant leen gërëm ci taxawaay bi ngeen xamante ne taxaw ngeen ko